couvre-feu bi je suis entièrement d'accord avec Macky parce que de un il y a beaucoup d'insécurité il des agresseurs il y des bandits il y a tout Macky il doit regarder le couvre-feu il doit gérer c'est le président de la République. 2021 moom moom nu mu commencé moom baaxul. baaxul dara dara dara ñi ñi nga xam surtout ñu ñu dëkk si baale bi dañuy sonn pour ñibbi imagine toi nga war a wàcc fii 18 bala balaa nga egg foofu sa gaal le 21 heures mooy léegi nag imagine léegi yow kon yow ban heure nga war a wàcc ak jour bi nga xamante ne si journée bi nu mu gaawee. wuur fa bu ñu tegal nii ban rapport la am ak feebar bii nii parce que indi woon nañ ko fi defoon nañ ko fi te gisuñu benn changement si feebar bi loolu ne benn gën naa yokku après demoon nañ ba teg ko te si kaw biir loolu noonu ñu tegoon couvre gis na fi gis nañ maanaam exemple quoi firnde yu sénégalais yu doon dund. ñun talu ñu loolu. yaa ngi nañ bàyyi dëkk bi dox. lam jaa ngi nii doxul a ah, football bi doxul darab doxul da ngay xool zone Sénégal yëpp xamuñ leen lu dul bëre ñun suñu classe bi ñu ngi nii xoolal fu ñu toog fu ñuy jëm nañ ñu dimbale tam. sama propre compte la arrangement un peu parce que man dinaa mun a reposer ay vingt une heures jusqu'à cinq heures du matin mais je sais le bon restaurant yi moom dañu mun a repos. ay heure yooyu dañuy la liggéey ba zéro heure. bu fekkente ne da nga bëgg jaay añ kese te jaayoo boolewoo ci reer bi du baax parce que añ bi kese mënul yore restaurant bi te encore ñun dañuy yore suñu place yi di ko fay yore waat suñu jànq yi ñuy jàppale ci liggéey bi di leen fay te weer ak moromam dafa jege. na xalaat ñiy liggéey guddi gi ndax xam nga am na ñoo xamante ne yoruñu seen liggéeyu bopp tey mën nga yore liggéeyu jàmbur. ba huit heures nga wàcc mais 9 heures ba 10 heures ba 23 heures mën nga dóor waar euh, xarmat ni ko gars yi di waxee waa loolu sa poos lay dem mais boo boo xaaree ba 21 heures nga wàcc doo am loo def sa poos da ngay liggéeyal kooku rek nga wàcc na sóoraale ñooñu ak borom restaurant yi. Ah, presque ñun ñi di liggéey matinal bi ay 20 heures la ñu war a wàcc wala au plus tard 21 heures léegi day changer. bon dinañ wàcc ay 17h wala 18h pour mën a may ñeneen ñi compte et tout. ñi nga xamante ne si dañuy liggéey guddi ñoom affaire boobu la maanaam lii nii ñoom la gën a touché quoi waaw parce que lépp loo gis rek chaîne la ko am ñoo xamante si guddi gi guddi guddi gi la liggéey ñoom bu ñu ko mënoon poussé ba 23h wala ba 23h demi sax moo moo gënoon. xale yu góor yi ñu moytu euh, comme que couvre bi commencé na ba heure bu jotee ku ne ñibbi sa kër. moo gën ñu lay def ci mbedd bi di la sonal ak yooyu